Ah, balang ini di ñibbi gak? balang kayak dëw ini di ñibbi kayak iwar kok ko ah, waaw bala mu ngi nii di ñibbi de gars yi ko wër waaw ah, bala ngi di ñibbi bala ngi di ñibbi ini foto photo sami balang ini foto ak sami balang ini foto ak sami Balla looy tàggatoo. Umar looy tàggatoo sa gaay sa fan si yeeg. Umar looy tàggatoo sa gaay. Umar looy tàggatoo sa fan si. looy tàggatoo sa fan si. tawfeex rek. na seetlu maa leen ñaanal jàmm. waaw di leen wax alan. alan. bientôt léegi incha allah. léegi lépp leer. Balla nee na léegi lépp leer. waaw Balla Balla nee na léegi lépp leer Balla dara gaay boog <laughs>